xaar euh, waa Benno Bokk Yaakaar am seen candidat je que loolu rek euh, euh, yàgg na ñuy xaar kan mooy candidat bi donc maintenant li amoon solo rek mooy ñu tànn ko ci ni mu gën a gaawee pour que ñu mën a ubbi parrainage ñu mën a xool sénégalais yi aussi nekk ci benn atmosphère électorale si en 2024. waaw frustration je pense que mënul ñàkk ci parti politique ndaxte ñoom ñëpp lenn la ñu bokkoon muy euh, président Macky Sall du moment que président Macky Sall nekkatul candidat kenn ku ci nekk xëy na jàppoon ni mën na nekk candidat maintenant bu ñu tànnee kenn tànn ñu la mën nga am mën na mën nga mën nga bañ a d'accord ci choix boobu mais nous ñun sénégalais moom lu ñu intéressé mooy parti au am candidat euh, yi aussi am seen candidat ñu dem ci élection yoo xamante ni d'ici à cinq mois dinañu permettre ñu tànn ki ñu jàpp ni moo gën